Bakary Domingo Mané ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. jërëjëf li ñu doon ruumanaat léegi amatul benn xéeni mii ni leer na nañ ay parti yu fare ci euh, kujje gi amal nañu démb lancement officiel coalition bu mag ngir jàmmaarloo ak régime Macky Sall ci élection locale janvier yi ñu dëgmal googee coalition daal di ëmb Pastef taxawu senegal ak parti unité et du rassemblement du pur ak yeneen i parti yu fare ci kujje gi ban jàngat ngay def gannaaw ba ñu lancé loola ñuy duppee grande coalition de l'opposition. jàngat bu ma njëkk def mooy parti yooyu lëkkaloo. Mhm. dañuy euh, tirer les leçons du passé. parce que boo xoolee euh, vraiment l'environnement politique sénégalais nu mu tëddee. c'est que euh, depuis des décennies. amul benn parti boo xam dañuy def élection ñoom moom rek. donc il faut que mu lëkkaloo ak ñeneen. je pense que dynamique boobu. moom la Pastef nekk pur nekk. ak taxaw Sénégal nekk la nekk. donc sur ce plan répète. Mm-hmm. et d'ailleurs en deux mille en deux mille neuf. vous vous souvenez il grande coalition boo xam ne daal moo tax euh, Abdoulaye perdre même euh, Karim Wade perdre dans son bureau de vote. Mm-hmm. donc parce que opposition bi dafa lëkkaloon euh, majoritairement. moom la gisaat encore avec cette coalition. Mm-hmm. parce que quoi qu'on dise mun nañ ne Pastef xam nañu lu mu pesé parce que PUR dem na élection présidentielle ah donc Khalifa Sall xam nañu tamit plus moins la la pesé. donc ñooñu bu ñu lëkkaloo bëgg a ensemble donc day day day day mel ni dans tous les cas euh, ils ont su tirer les leçons du passé donc man loolu laa gis. Mhm. Euh, c'est des gens qui veulent vraiment marquer l'histoire et euh, créer les conditions d'une victoire. Mhm. au lendemain des élections locales de de deux mille vingt deux. Mhm. alors taxawu Pastef ak PUR ci genn entité lan mooy seen chance googee coalition ak pouvoir bi waaye itam aslëf ci geneen kujje gi nga xamante ni bokkul ci coalition bi. pour man d'abord seen chance par rapport pouvoir bi. mooy pouvoir boo koy seetlu temps yëpp. temps yëpp temps euh, euh, vraiment dafa bëri coow coow euh, dund bu cher bi donc ne serait-ce que par ça d'abord opinion bi vraiment va se retourner contre contre contre contre le parti au pouvoir donc mun nañ ne sur ce plan là il suffit simplement d'un d'un d'un discours boo xam ne daal argumenté et tout mun nañu mun nañu inverser n'est-ce pas la tendance loolu moo premier premier pàcc bi deuxième pàcc bi mooy ñi ngànk nest pas coalition bi boo jëlee PUR lu ko déterminer mooy c'est un parti boo l'idéologie religieuse bi euh, mu ngi si mhm. cest le chef qui donne des ordres et à la base on exécute sans poser des questions donc c'est des gens yoo xam ne ils sont euh, bu ñu def vraiment c'est on travaille à la base donc ça c'est important parce que élection locale yi dafa méngu ak philosophie boobu c'est ay ndaw ñoo ko donc ndaw ñi gis nañu vraiment seen taxawaay depuis événement avant même événement mars dernier mhm. gis nañu seen seen taxawaay dañu a changer système te tu euh, l'impression que vraiment Sénégal yëpp si si affaire boobu la ñu euh, moom la ñu nekk en tout en tout cas la majorité. Mhm. donc ñoom tamit dañuy approche boo de proximité maanaam yi nga les vacances euh, vacances yi ñuy def euh, dem si champs yi di di liggéey dem rencontrer kii donc donc élection locale bi dafa méngoo ak philosophie boobu. Mhm. nga jël quelqu'un comme taxaw Sénégal donc Khalifa Sall xam nañu jéego bu mu def moom tamit dafa nekk si xoolu sénégal yi donc l'un dans l'autre pour man coalition bi am na chance vraiment de l'emporter face au parti au pouvoir maintenant mhm. opposition mais ñoom tamit am nañ chance parce que bu ma jëlee quoi Pérez Pérez pour le moment xam naa dina jox choisir euh, coalition et certainement diriger ko parce que man je pense que euh, loolu c'est quelque chose n'est-ce pas à à retenir donc su fekkee Pérez la ak coalition P xam ne Pérez na fa nekk mm-hmm. pour man euh, coalition bi mën na am chance vraiment de l'emporter de devant devant le Pérez ak coalition bu mu mën ta mm-hmm. parce que Pérez bu ñu xamoon démb mm-hmm. du Pérez tey parce presse bi dafa dafa chance am nuñ koy encore euh, force am dafa dafa dafa wàññeeku baax a baax a baax a a baax mm-hmm. parce que euh, leader yi bari ñoo quitté PDS dem si beneen euh, beneen beneen beneen kuréel dernière personnalité en date mooy ñoom Omar Sarr mm-hmm. te Omar Sarr vraiment ça ko c'est kenn kenn na la si PDS boo xam ne la mënuñu natable am na am na am na baal donc su fekkee ces PDS là vraiment et puis deuxièmement kenn xamul Euh, force PDS fal la fal lañ ko natt parce que présidentielle bi demuñu demuñu demuñu élection donc euh, mënuñu natt n'est-ce pas force am c'est pourquoi je dis au moins euh, si coalition grande coalition bi au moins les deux ont été à la présidentielle xam nañu vraiment la ñu représenté mhm. maanaam Pastef ak PUR xam nañu lan la ñu représenté donc pour man vraiment loolu mooy loolu mooy loolu mooy loolu mooy force grande coalition bi parce que okay. le le reste le reste des des opposants dama ragal vraiment ñu ñu multiplier encore d'autres pôles ah d'autres pôles vraiment de coalition et bu boobaa ça ne fait qu'arranger vraiment la grande coalition parce que je ne pense pas que dina am qualité beneen beneen beneen euh, beneen coalition dina am qualité vraiment des entités comme euh, coalition bi nga wax ni PASTEF euh, PUR. Mhm. ak taxaw taxaw taxaw Sénégal. <laughs> alors monsieur Mané jàpp nga ni coalition bi lu may élection locale yi mën na dem feneen maanaam élection présidentielle ndaxte ku nekk ci euh, ñi nga xamante ne ñoo bokk ci coalition bi di nga bëgg a jiite comme li tubaab di wax deux voir trois capitaines dans un même bateau mën naa metti waaw euh, d'abord par rapport aux prochaines locales euh, élections lo euh, législatives mhm. c'est-à-dire que su fekkee ñoom vraiment dañu am résultat yu baax a baax a baax du du ñàkk ñu ñu rééditer vraiment la même euh, grande coalition dem législative jéem a jéem a am vraiment ay députés euh, à l'Assemblée peut-être même groupe parlementaire mhm. du mm maintenant euh, par rapport à la présidentielle foofu mooy problème bi pour man euh, coalition bi mënuñu ko mënuñu ko yóbbu beeg euh, présidentielle hmm. parce que euh, bu ma jëlee exemple Pastef Ousmane Sonko hmm. justement vraiment ban leader moo nekk fi ku koy tere présenter candidature am je ne pense pas que moom dina nangu je ne pense pas que Pastef dina nangu bañ a présenter un un un candidat à l' élection présidentielle 2024 hmm. nga jël pur pur xam nga moom am na expérience dem na élection présidentielle même su fekkee dafa jël quatrième place je pense. Mhm. donc euh, kooku tamit euh, dina am euh, beneen taxawaay xëy na à la limite mun na concéder se ranger derrière quelqu'un d'autre waaw loolu mun na ne mais bu présenter tamit à la présidentielle de 2024 warul bëtt kenn parce que déjà. pour man am na expérience bi euh, parce qu'en a amoon na candidat donc maintenant mu des Khalifa Sall Khalifa Sall su fekkee lu ñu teg si kawam la dañ ko dañ ko dañ ko dindi lu du am natable que moom tamit dina sàmm ndëndëm ne soit en deux mille vingt quatre donc coalition bi. Mhm. justement ko ba en mille vingt quatre. par contre élection législative oui su fekkee vraiment euh, locales yi dañu am élection dañu am résultat baax donc mun nañu disons rééditer euh, disons expérience euh, locale deux mille vingt mhm. ab coalition bu mag bu bàyyi ko ci kujje gi te parti démocratique sénégalais bokk ci lan nga jàpp ni formation boobee nga xamante ne maître Abdoulaye Wade moo ko jiitee ñëwul bokk ci googee projet. waaw pour man euh, ñaari yëf ah, laa gis euh, pourquoi bokkut ci projet bi. Mhm. je pense que euh, aujourd'hui PDS dafa ragal. Mhm. bu intégré coalition grande coalition bi. Mhm. mu bañ a feeñ parce que kenn du nangu mu jiite parce que critère bu mu mën a nekk en avant critère boobu amul. parce que kenn xamul lan lu tax ma ne la kenn xamul lan lay peser mënul wax imposer wu disons aux autres membres de la coalition en disant que moo war a jiite par exemple parce que lu tax demul sax élection présidentielle donc mënuñu xam exactement Pérez lan lan la peser aujourd'hui mm-hmm. évidemment mun nañu rafet njot que ba léegi moom mooy principal parti d'opposition mais loolu euh, su fekkee euh, dañuy wax euh, yàlla moo tax ñuy wax amuñu foo xam ne mun nañu sukkandiku mhm. vraiment pour le prouver mhm. on peut rester dans le passé en disant oui mooy force de l'opposition mais il y a aucune amul benn statistique n'est-ce pas bu ko trouver parce que demul sa élection présidentielle donc pour man première raison bi lu tax vraiment intégrer grande coalition bi parce que bëggul ñu noyyi ko si foofu deuxièmement dafa bëgg a natt boppam. Mhm. donc natt boppam boobu mooy lan moom mu formé benn coalition boo xam ne moo koy jiite. comme ça même bu ñu amee disons ay ay collectivité locale bu boobaa dañuy fàtte yeneen parti PDS la ñu wax. Mhm. yaa ngi dégg donc je pense que loolu la bëgg a loolu loolu la bëgg moo tax vraiment mu bañ intégrer disons la grande coalition. Mm -hmm. chose mooy lu peser euh, menace posée sur euh, Karim Wade et euh, sur sa, sa candidature en 2024. Mm -hmm. Donc tant que Abla qui euh, euh, Macky Sall mm -hmm. nangu ko tant, tant, tant que Macky Sall euh, bañ kii présenté wu l'élection présidentielle xëy na mun nañu agiter vraiment menace judiciaire. Mm-hmm. Donc le PDS aujourd'hui dafa nekk posture boo xam elle il est faible et faiblesse boobu lu ko waral mooy euh, euh, lu ñu lu ñu toppee Karim te fu ma nekk nii je pense que le PDS va négocier ba jot lu mu bëgg. Mhm. donc euh, su fekkee loolu dafa bëgg négociation bu boobaa bëggoon nekk si candi pardon coalition boo xam ne daal vraiment contradiction yi c'est très très marqué par rapport au temps du pouvoir. Mhm. parce que coalition grande coalition moo xam ne contradiction c'est très très marqué par rapport au temps du pouvoir mhm. parce que ñi fa nekk c'est des opposants yoo xam ne daal du ñu bàyyi dara justement Macky Sall mhm. Mhm. donc si le PDS intègre une telle coalition donc mun na euh, réduire les chances de voir euh, euh, Macky kii Karim Wade vraiment recouvrer Euh, lu ñuy wax euh, ces ces ces droits civiques. Mhm. donc loolu mooy problème bi xam naa ne ñaari yëf yooyu moo tax pour man vraiment euh, le PDS est dans une situation de faiblesse. Mhm. boo xam ne daal moo tax intégré wul. Mhm. vraiment de mon point de vue. vraiment cette grande coalition. très bien alors mu mel ni guerre bi Dakar dina métti enjeu bi ñaari boor yi moo xam kujje gi ak nguur gi la la nar a doon Bakary Domingo Mané. waaw d'accord boo nee Dakar rek <laughs> c'est mhm. Dakar dama nekk une ville rebelle mhm. xam nga euh, su fekkee euh, généralement dañuy ne euh, opposition bu ndaroon gagné élection bu mu mënta doon généralement Dakar lañ koy nattee c'est vrai que bon Macky Sall a a a contredit cela lors de de l'élection présidentielle de 2019 defe naa moo emporté Dakar mais loolu présidentiel la mais pour de local je pense que c'est par rapport à l'enjeu de 2024 mhm. c'est-à-dire aujourd'hui su fekkee opposition ma liggéey na liggéey bu mucc ay boo xam ne daal moo ko poussé ba conserver Dakar bu boobaa évidemment mu na nekk woyu bu baax mhm. parce que euh, mun na rappeler du ñu amoon fii en deux mille en deux mille neuf mhm. bu opposition bu lëkkaloo face au PDS dañu battre le candidat hmm. euh, disons du Parti démocratique sénégalais Karim Wade dans sa propre dans son propre bureau de vote hmm. donc je pense que loolu euh, mën nañu ne euh, gagner Dakar loolu moo enjeu bi enjeu bi c'est par rapport vraiment à la dynamique bu ñu demee aux prochaines législatives et à la prochaine présidentielle. Mmh. donc euh, bu ñu gagné Dakar rek loolu confiance opposition bi ba tenant du pouvoir tamit maanaam ñu nekk si nguur gi bu ñu gagné Dakar tamit loolu daf leen jox courage daf leen jox euh, disons espoir par rapport aux prochaines élections législatives et présidentielles donc Dakar dafa nekk enjeu boo xam ne la au-delà même de l'argent mhm. au-delà même de son pouvoir euh, disons euh, financier mhm. il y a d'abord la symbolique symbolique bi mooy Dakar mooy vraiment c'est la ville rebelle boo xam ne la ku ko gagné vraiment xam nga ni. Mhm. mun nga am mën bu baax par rapport à la suite des compétitions. Mhm. donc loolu moo tax euh, ñu ngi xëccoo Dakar. Mhm. opposition boo si bëgg a rek. loolu dina impacter pour moi les prochaines législatives. et la prochaine présidentielle. alors bu dee ci biir euh, benn Bokk Yaakaar foofu itam ay guerru ambition ku ne mu ngi bëgg a wane boppam jàpp nga ni dina yomb ci Macky Sall mu mettre de l'ordre ndaxte nag ñenn ca biir coalition benn Bokk Yaakaar ña ngay tàmbalee waajal après Macky Sall. waaw après Macky Sall moom ala kulli yi su fekkee constitution la ñu wax. Mhm. Euh, Macky Sall jeexal na 2024 dootul nekk candidat moom xam na ko sax. Mhm. maintenant comme ni ma waxee noonu su fekkee ñoom seen résultat baax na euh, maanaam waa kuje gi waa waa waa waa tenant du pouvoir bi su fekkee ñoom seen résultat baax na ñu am ay collectivité bare bare bare bare bare mun na changé donne bi maanaam euh, les tenants du pouvoir mun nañ def force sax. peut-être même euh, euh c'est les, les élus même qui peuvent demander à Macky Sall de se présenter en 2024. Mmh. donc enjeu bi foofu la d'ailleurs même boo xoolee tournée économique bi pratiquement dafa battre campagne pour les responsables locaux donc dafa battre campagne avant la lettre. Mmh. donc pour dire que euh, c'est vrai mais euh, am na tuuti jafe dina am jafe-jafe xam nga lu mmh. que comme étant président sortant am na ñoo xam ne ba léegi. ils n'ont pas bénéficié de ces décrets de nomination. Mhm. ñooñu su fekkee dafa am euh, euh, ñu bëgg a représenté wu présenté wu euh, au niveau de de leur localité. Mhm. après ñu ñu ñu ne Macky Sall moo war a arbitrer. Mhm. mais wóor na ma ne ñoo xam ne ils n'ont pas bénéficié de décret de nomination. dañuy dañuy dañuy lànk dañuy tëdd su suuf dañuy dañuy bañ donc loolu mooy première faiblesse bi. deuxième faiblesse bi. même ñoo xam ne daal ils ont bénéficié n'est-ce pas du décret de nomination. Mais ñooñu, ils vont se dire que euh, c'est fini. Euh, après le local la les prochains locales Macky Sall fi nekk. Mhm. donc euh, donc loolu tamit faiblesse la. Mhm. donc l'un dans l'autre pour man dina am riir. Mhm. vraiment si quand quand parti au pouvoir dina am riir riir lool. Macky Sall mënul gérer tous les contentieux loolu mënul nekk. dina am vraiment des fissures. te contexte bu ñu nekk ni vraiment ak dundun bu cher bi. ak euh, ak scandale yi. Mhm. donc surtout ak mbënn mi. Mhm. donc euh, ça ne va pas faciliter la tâche. Mhm. vraiment au tenant du pouvoir. très bien alors justement wax nga ko est-ce que coalition Benno Bokk Yaakaar boobu mën naa ragal ñàkk ci élection locale yi. ah mais bien sûr <laughs> loo xam ne la mën nañu ko envisager. comme ça wax naa la ko en 2009. en 2009 le tenant du pouvoir dañu ñàkkoon élection locale yi donc loolu mën na nekk parce que comme ni ma la waxee rek. bu ñu jëlee contexte bi contexte boo xam ne de la vie euh, dure la vie chère du moins. Mhm. donc euh, sénégalais dañuy fippu mun nañu fippu ñu ne ñii daal vraiment amuñu euh, amuñu. Euh, disons euh, compétence yi. Mhm. pour sortir euh, sénégalais si ndóol bi. donc mun na nekk la révolte n'est-ce pas des populations. te révolte population bi arrangé wul. mukk disons les tenants du pouvoir. donc pour man daal c'est une probabilité boo xam ne il faut compter avec. Mhm. opposition bi pardon parti au bi bañ a bañ bañ a gagner dans certaines localités maintenant su fekkee le processus est un processus boo xam ne daal c'est transparent. Mhm. mais su fekkee dañu jalgati au niveau du fichier tamit les les les candidats n'est-ce pas du, du parti au pouvoir dans les différentes localités donc pour moi mm -hmm. il faut d'abord un scrutin euh, un, scrutin euh, ko encore vraiment libre et transparent mhm. je veux que loolu am na l'autre ennemi vraiment du des tenants c'est vraiment la demande sociale mm -hmm. donc euh, euh, pour man euh, il faut envisager euh, disons la perte ou du moins la défaite des du pouvoir dans plusieurs localités très bien alors monsieur Mané juste une dernière question laataa ñu lay yeewi lan expliquer coow li nga xamante ne judd na ci certificat de résidence yi waaw <laughs> coow loolu mhm. mooy li nga wax primo votant ñoo xam ne daal xale ñoo xam ne daal dix-huit ans te dañ donc ñoom euh, lu tax mu am coow euh, parce que non seulement euh, dafa am problème lu ñu wax transfert des électeurs mais en même temps ay électeurs yu bees ñu ñëw vraiment remplir disons le fichier te électeurs yu bes yooyu mooy xale yi gone yi donc gone yoo xam ne daal dañuy am la majorité balaa élection yi jour élection bi mhm. donc ñooñu enjeu bi mooy lan parce que simplement dañu bëgg a daanal daanal waa nguur gi mhm. xam nga loolu la ñu xalaat. Mhm. moo tax ñoo xam dañoo war a jox euh, kayit boobu xale yooyu. Mhm. dañ koy dañ koy conserver. Mhm. donc loolu moo loolu mooy coow li donc da ngay gis euh, benn maire vraiment joxe euh, papier boobu ñoo xam ne wóolu na ñoo xam ne wóolu na leen <laughs> mu bañ joxe. donc enjeu boobu loolu la bi mooy dañu ragal que xale yi gone yi vraiment dem jël seen carte. dem voter ne ce pas opposition donc loolu mooy coow li. et en principe dans une démocratie kenn war xañ droit de vote n'est-ce pas citoyen. loolu moo wax ci maintenant xamoon nañu débat bi en bi gis nga votant yu bëri dañ leen tere voté parce que li ñu li ñu nekk di vivre ni mhm. moom la ñu vivroon en mille dix neuf euh, si bien que dañuy interdire ou du moins dañuy créer les conditions ba xale yi ñu bari euh, ils se sont pas ils se sont pas Domingo Mané maa ngi lay jaajëfal. maa ngi lay fay. fàttali ne taskatu xawaar nga sa xam-xam màcc itam ci wàllu communication nga doon itam analyse politique.